mbokk yi ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax tey nag ñu ngi fi nga xam ne moom moom mooy presse bi tey entraînement am ngir lan waajal le 19 juin diggante ma ki nga xam ne moom mooy soq bu Pikine ñu ngi ni nag toog ak moom fekk koog ñi koy entraîné ñi koy encadré ñëpp Franc ñu ngi lay jaar bu baax waaw Babacar maa ngi leen fay di nuyu ñi fi assistance bi fi teew yëpp di nuyu waa Parcelles Unité 26 encore une fois di sant yàlla bu baax a baax nga di sant suma papa bu baax di ko ñaanal wér xam nga yàlla bàyyi ko ba si kanam kanam ak suma yaay di ko ñaanal di leen ñaanal daal ñu fekkee suma njëriñ. Mhm. fran laaj bi ñu lay njëkk laaj mooy fran si sa carrière combat bu mel nii nga jëm ci le 19 juin est-ce que fran combat bi niveau bi mu toll parce que combat la boo xam ne ñëpp a ciy wax fi mu nekk nii muy combat bu mag boo xam ne ñëpp a ngi koy bàyyi xel dayo bi combat bi am. maanaam nu mu def Franc. non vraiment ñun combat mënuñu dépasser ñun géew bu ne làng nañ fa comprendre lii combat la rek comme yeneen combat yi fi jotoon jaar waaw combat moom mun ñoo dépassé quoi vraiment. Hmm. te lu mu rëy rëy ñun àgguñu fii combat bi. Hmm. àgguñu fii. àggu la ci we. moo tax yeggu la foofu. non maanaam comme gars yi comme ni ngeen koy waxee yooyu dafa combat coow moo bëri mais combat wax dëgg fa neex yàlla réyul ci man bi moo réyul wala adversaire bi moo tuuti ci say bët ba tax nga waxee noonu. waaw peut-être tamit quoi. adversaire moo tuur say bët. waaw peut être na tuuti samay bët ah. waaye mais combat daal réew ci man ni ma ko doon jëlee noonu laa koy jëlee rek. Mhm. waaw à la légère jàpp daan quoi. jàpp daan waaw noonu laa koy jëlee nu ma ko doon jëlee waaye. Mhm. si. boo nee jàpp daan kon ça veut que kon sa 30 secondes yi nga waxoon ci moom bu ñëwulee nga dem muy une minute. kon ba tey foofu nga nekk. waaw non loolu wax naa ko waxati ko quoi mu koy neex mu koy naqari man loolu laay foofu laay ñëw ak yow. sëñ bi. bi démb dama leen seetaan mu mel ni seen communication démb daa mel ni defante la woon mais yow dama la gis tout le temps di kaf di mel ni daal koo xam ne nekkoo ci pression lan la danga ko bëgg a euh, merloo wala da nga bëgg yëngal xolom wala qu'est-ce qu'il y a. non non man man ci ci cadre lamb lamb lañ nekk sport la nekk comprendre nga même journaliste tey yéen ñi di posé yéen tey da yéen ñu war laaj ci lamb ji. Mhm. mais pas ay dugg ci ay famille jàmbur jéem a dugg pour jéem la jaxase ak Sénégal. ñun doxewuñu noonu ñun sport la ñuy def man man bokk man sama cadre man cadre sport laay def li may wax ci làmb la yam ak ci sport. bu fekkee damay wax leneen loo xam ne da leen di touché soit ñu dañuy jaxasoo comme man maa ngi ci wala dama leen jéem jaxase man maa ngi jégalu maa ngi tuub comprendre nga man ñëw ma pour jaxase leen man de luñ seen ànd boobu ñuy ànd yàlla suñu borom defal jàmm mais man damay wax moom ci cadre làmb mu jël loolu yóbbu ko feneen di ut ay ndimbal di politique comprendre nga. bu fekkee ne dafa dem ba jël combat bi ba affaire bi commencé mu diis ko wala mu commencé affaire bi commencé métti ci moom mu wax ñu mais pas mooy jaxase ak doomu aadama yi wala mooy jaxase ak sénégalais yi. man non yaa ngi ko dégg mu naan man aw ma respect def na ni yooyu noonu man ka kan laa ma mës a manque de respect ci làmb te man su ma amul respect sax moom moom moom moom moo ma jox ma lekk wala moo ma war a yar wala moom mooy naan ma aw ma loolu du àdduna ñun sport la ñuy def nañu yem ci cadre sport bi nañu yem ci cadre làmb mais muy génn ay feneen dafa am ñoo xam dañuy seetaan Babacar. am na muy waxee noo xam ne waru koo waxee. ñun lépp luñ la mën mën nañ la mbalak kaañ foo ree mais lépp ci sport bi lañ koy yemale ci làmb maanaam làmb ji dafa laaj loolu ñu show waxtaan xam nga. tey bi wàcc naa aéroport nga ne ma Babacar nga ne ma Franc waa Pikine nee nañ dañuy indi Eumeu Sène da ko indi Ama Baldé da ko indi Boy Niang. may la bu ñu ñëwee mu yooyu ma tas ko. seen 100 pour cent bi. Hmm. loolu la pour seen 200 wax cadre sport mais waxuñu mu jël wax bi di ko yóbbu feneen xam ma di ñu jéem a jaxase ak àdduna mais xëy na mooy loolu quoi la mental bi toll fu mu toll nii. yow 200 pour cent wu Pikine mën nga koo tas yow. cadre lamb mën ngaa tas 200 pour cent bi. waaw xaar ba le 19 ñu xam mën naa ko tas wala mënu ko tas xam dañ koy indi. waaw buñ ko indee man dinaa ko tas. di ko tas waaw. Ah. si. Pikine gépp a takku de Franc. waaw mais parcelle bi gisoo bii bañ taxoo kañ la li tas ko dafa yomb. li tas ko yomb. gesul sa ginnaaw roi des arènes ngay toog. parcelle am na lépp. des ah. DG Ibou laa ngi nii. Ah. bisanti ak ñeneen ak ñeneen ñoom Dioum 2 champion yi ne ci ginnaaw. Ah. Papa saw boo bu la neexee sax mun naa la jox pël bi de wala ay ñoom macc boole. waaw mu ngi noonu. kon daal Pikine moo la déggee parcelle moo ko gën a pare ci say wax. waaw ñun moom wax dëgg fa neex yàlla pare nañ bu yàgg te yàlla ñun dañoo booloo di ànd yéen te jàmm xam nga boobu ba ñu ngi fii gis nga am na ay mag am na ay xale mais kenn ku ci ne xam nga ni kii fii la la yem wala kii kii moo la mag nga jox ko cër boobu ñoom tamit ñi nga xam ne seen raq lañ fi nekkal ñoom chaque jour ñu ngi leen di comprendre di leen tette di leen conseil àdduna loolu la. yow yaa ngi jiitu àdduna tey war naa la romb même budul dara sax nga ne ma ah booy su ma sañoon del defee nii nii yooyu noonu boo jiyee si man loo xam ne heure la nga dem carrément nii ak nii defee nii loolu mooy àdduna ñu jàppalante góor jàpp ci góor mu dem si yoonam. mu dem si yoonam yëpp. léegi bu ñu si cadre bëre bi yaa soq ñu bëri na nañ am na ñuy wax ne côté bëre bi yow yaa ëpp avantage am na ñoo xam tamit gisawuñu noonu ndax ku mel ni Bada Dione kere naa ko micro mu seetaan nga vidéo bi xaw ma seetaanoo ko moom nee na gis na ne bu dee ci bëre la ni sax est-ce que soq xaw la ëpp xaw la ëpp bëre tuuti waaye yow bu dee côté xeex yaa dàq xeex yow ñaar yooyu xeex bi ak cadre bëre bi bu ngeen ci demee. waaw xam nga làmb moom Bada Dione maa ngi koy nuyu au passage moom suñu grand la quoi vraiment lamb moom làmb ku ne ak nooy gisee. Hmm. kii day wax fii kii wax fee comprendre nga mais ñun préparer wu nañu Babacar préparé ñu pour jëm ci le 19 te waa jàmbaar aussi tam am na lu ñu yabee te am na fu ñu demoon tukki woon nañu dem nañu ñëw tàggat nañu vraiment ñu ngi sant suñu bopp à 200 pour cent. waay. Hmm. maanaam yaa ngi yëg sa bopp bu baax. vraiment. gars yi ku ci am rek. parfait waaw waay yaa ngi yëg sa bopp. si parfait Babacar. waay. Hmm. c'est waaw amul problème xëy na waaw waxam xëy na moom noonu la ko sentir rek amul problème ah loolu dara. comme li ma na ñaari mbër nga daan tamit da metti de. non non lu may metti man ñëpp ñu ngi gis li may def kay jarul loolu am na yoo xam ne kenn du ci wax loolu sax kenn du ci wax kenn du ci nekk di ŋaam ŋaamal yooyu noonu. ah waaw waaw waaw mais mais mais Babacar mais Babacar xam nga boo da nga dajeeg waxkat te aussi tamit ah soq xam nga xam nga soq. soq waxkat la bu bu waxee nga fa ne moo yor mooy tëj mooy ubbi su waxee rek man man sama man sama xel foofu la jëm pour man moom moo jàngal ñëpp bëri moo teete ñëpp waaye la 19 ñu ngi koy xaar hmm. waaye. Ah, est-ce que yow moom communication moom amul droit wax parce que li la mu doon laaj tamit jar na bàyyi xel de yow ni ngay waxee ci combat bi tamit daa bëri de daa mel ni. ah mais yen yéen tamit kenn xamul li ngeen bëgg yéen nit bu waxul nga ne ko na ko nay tàng tamit ah yéen tamit ah. kon Babacar ah. Ah. waaw man man xama man damay bëgg mbër boo xam ne aussi tamit dafay yor dafay ñëw di teg sañ-sañ dafay ñëw di def xam nga comme ni muy waxee non comme ni muy waxee déglu ma comme ni muy waxee bu fekkoon mu ngi koy bëree waaw man di ko jëfee man sama dinaa ko mën a kiiwal quoi hmm. waaw dinaa ko mën a nangul. dinaa waaw. waaw. waaw. waaw. waa non waaw dama bëgg a daw xeex moo tax man pare ma pour xeex moom quoi. waaw non dama waaw da nga wax rek dama lay tontu. xam waaw moom mu moom wax. waaw pour moom laa lay wax moo tax maa ne man xeex bi dama ko bëgg a daw bëre bi laa bëgg a moom. Hmm. waaw xam maa ko daa ko bëre bàyyi ma jàngal ko rek. yaa daa ko bëre soog. si bàyyi ma jàngal ko. da ngay daw xeex bi nga ne. waaw ah, bi moom dama koy daw. loo ciy daw. <laughs> xëy na xëy na xeex moo tax. waaw. waaw xëy na mën a nekk tamit quoi xam nga mbër xam nga mbër mbër nu ne ak nooy daanee ak mbër bu ne ak nooy bëree mais na ñuy xool adversaire bu muy am imposé ko jaar ko jaar sànni fële nañu xool yooyu moo daan tax waxuma mënul bëre de waaye tamit <laughs> dàquma bëre de. Franc daa soq daa waaw loolu moom bu la neexee ngeen laaj ko ñii di ñii di commentaire. Hmm. aussi tamit wala ñi nitu làmb bi hmm. waaw. ñi hmm. waaw ñëpp xam a xama tey ku ne sa xalaat ngay wax comprendre nga mais man li ma liggéey xam naa ko ak li ma mën xam naa ko ak li ma capable xam naa ko bor bi sifflé dinaa def li may def dem ñibbi. di nga def li nga incha dem ñibbi bu ñu si yàlla bàyyi ak bës ba. Eh, Franc. waaw bu ñu déggee euh, boobu ba muy wër naan ay moom nangul ma ko champion léegi bàyyi nangul ko champion amul problème ba bës ba ba le combat bi. genre comme noonu mhm. ko pousser victoire. alors à l'âge ans laa yor sama saag man dong di génn di dem bëri ji xaw ma kenn foofu di dem di jaayante ji comme leen lii déranger wu ma. man tey fu ma ak fi ma ñëw ba toll fii ci làmb non non man lii su ma ma xam ne tey man mënu ma nekk mbër wax bu ñuy wax ak lépp ma déranger ma xam ne man mu parew ma pour ëllëg pour doon mbër bu mag wala pour doon champion. mais xool sa xool ko ne ko ci uh-huh. yow yow tey yow tey yow gëm nga ni fii kenn dàqu la fi liggéey n'est-ce pas. waaw laa loolu laa gëm rek. <laughs> am nga ci droit. waaw waa Xaadim Xaadim waaw non moom may e laaj mu doon tax question xaadim. xaadim de voilà. Ah, maa lay ziar dama maa kan man non man kay li ma koy wax wax naa ko pare kay loolu kay mu yàq sama concentration. waaw léegi waaw loolu dama see liggéey quoi ma see pare ba pare. 30 secondes waaw dama ci liggéey. bu ko tëniree ko. bu ko non mënu ko mënu ko tënir. non non mënu tënir. ah. non non ay. pour kaaw 1 million jël pare ngir loolu. moom ndax pare na ndax pare nga ngir teg 1 million ci table yi. non amul amul daan jël. man amul man boobu. Ah. nañ teg reliquat yi moo gën reliquat yi ëpp na 1 million. waaw waaw sama combat ak njaga doole mooy bëri moom gis nga dañoo tegoon Modou Mbaye moo ko téye. Hmm. man man jaaxlawu ma ci loolu. Hmm. non non loolu lu ñu bëgg nañu indi. ñu teg am problème. Hmm. na ñu du yàq dara ci mobilisation. suñu jarbaat la xam nga jarbaat góor suñu jarbaat la ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla defal ndam xam ak bépp mbër bu am parcelle komba nekk parcelle yàlla na la suñu borom. dafal ndam ba pare dafal la jàmm aussi waaye mooy lépp quoi. waaw Moussa boo xoolee entraînement bi nga xam ne xam nga gars yi ñoom ñoo gën a bëgg combat bi sax quoi. Mhm. ran nga. dama ba ci dem ci guddi mooy yam ba ñu jugee signature ba xam nga gars yi ñëw gën la. dooleel gën la ne la ñu ngi sa ñu ngi sa ginnaaw. Mhm. tey ak suba. léegi boo gisee tey fi ñu jeexle mooy boo gisee ku mel ni Modou Lo Papa Sow fekk nañ leen fi mhm. say mag lañ d'accord say kilifa lañ mais Modou Lo boo xam daane ci lu bëri dañ koy gis muy ñëw. ci sa préparation combat lu muy def ci yow. waaw Modou lu mu def la war a def rek parce que ñun ay raxam lañ ñun moom bu amee combat aussi tam ñun lay demee moom ñun moom bu amee combat day mel ni ñoom komba boo neex nga laajte nii Ibou mhm. nii. ñi lañ nii lay demee. ñoom aussi tamit moom moom ñun bu ñu amee combat nii la war a def. te yéen ak Pikine yéen ak Pikine daa mel ni diggante bi jeexagul de. non ay ay ay Babacar. Hmm. foog ñu ñoom ñu delloo seen xel yi. waa Pikine waaw. parce que ñu xam ne affaire bi làmb la sport la. am na ñeneen yoo xam boo koy communiquer rek. Hmm. da ngay indi da ngay yaa ngi yee fitna. tey fitna yàlla rëbb na ko koy yee baaxul ñun sport bu ñu nekk ñun dañoo war a boole Babacar. Hmm. comme tey ñu ak yéen nu ñu bokkee xam nga. léeg-léeg nga jékki-jékki woo ma lamin laa même chose keneen ak keneen. ñu waxtaan xam nga ñu xool loo xam ne mooy avancer suñu làmb suñu lutte bi. mais pas nekkul ay kii wax bu wax bu wax bu kii jaru ko quoi waaye. jaru ko non jaru ko ñun ñëpp ñoo far ñun sport la ñuy def dañoo war a booloo. waaye dóor mu daanu sa combat bi mujjee xeex la ba adversaire bi jël ay coup ba presque boo xoolee moo ko daane mën nañ ko xaar ci kombaa bi waaw mën na nekk de lamb moom làmb la rek Babacar l'essentiel daal maa li may wax maa ngi wax ñi may bëggee. pare naa fépp pare naa ci kaw pare naa suuf pare naa fi pare naa fee. looy tàggoo. waaw. waaw nee nga da nga koo xam. si xam. dama koo xam. ah yow da nga xam. dama koo xam. nga xam soq. xam naa ko xam yu bari. mais yooyu noonu doo ko doo exploité fii quoi doo ko wax fii da ngay bàyyi ba rek yaa ma gën a xam. Hmm. xam naa ko bu baax de leer laa wax. Hmm. xamantuma ko sax dama ko xam bu baax. da nga xam bu baax. si am na solo. léegi looy tàggoo ak itam waaw Thierre.